asalaamaaleykum wa rahmatullah taala wa barakaatu man la Abibu jiite ADF artiste musicien rappeur voilà maa ngi nuyu yéen ñu fi teew ñëpp ku si nekk si turam ak santam bàyyiwuma kenn di nuyu ñi nga xamante ne ñu ngi suivre à travers suñu euh, suñu télé en ligne yi voilà muy Top TV ak euh, Han TV voilà euh, su ma limee damay juum maa ngi nuyu ñëpp bàyyiwuma kenn. tey ñu ngi ñëw pour présenter leen benn EP bu ñu def. EP bu ñu ko waxé moy modd moy dox EP daanaka album la voilà ndax bo seetee à part album euh, comment dire mixtape mo fi xewoon té temps yi turu EP mo demandé mo moo dominé quoi kon tour la rek voilà EP moy extend play la ak américain di wax genre sélection le bo def mën na dem comme CD clé USB présenté comme sous forme de album ma def ci 8 titres ñëw pour présenter ko Sénégal ak àdduna yëpp nga xamante ne ñu ñu ñuy suivre dans waaw boo seetee ñu jël ni bu yàlla nee waaw euh, ndax fi fi jamono tollu la ak fi àdduna toll waaw ndax tey li ma naan wax bu egg dofa ko moom quoi voilà euh, bu yàlla nee waaw junju la te ku nekk xam na ni bu yàlla nee waaw ku ni déet dangay sonn moo ci topp te lépp àdduna yàlla suñu borom la lépp looy def rek te euh, jokk ko ci yàlla suñu borom rek loolu noonu Euh, defuwul dal waaw te mo xew ci côté musique bi voilà mën naa si joxe sax ay ay ay exemple quoi par exemple mën naa joxe ay exemple parce que ñàkk nangu bi nga xamante ni xew ci aduna comme par exemple Habib day dem dama koy dog té amana Habib mi ngay dog yow sa avenir wala sa réussite wala sa njariñ mën na nekk si carrière am bobu ngay xeex ñàkk nangu mo am ci digënté par exemple Macky Sall ak Sonko parce que bu yalla né waaw ku ni déet da ngay sonn moo am si diggante xam nga Youssou Ndour ak Thione Seck ak coo yi ngay dégg daal si diggante Modou Lo ak Balla Gaye parce que bañ a nangulante bi la moo tax ma ñëw indi foofu pour gindi jaam ñi këni leen bu yàlla nee waaw kon bu yàlla nee waaw si doomu aadama nañ ñu waaw rek mais bu ñu nee déet rek mooy waral jafe-jafe àdduna yi ba muy mel ni mu jug jamono quoi sama date de naissance 88 voilà ma indi 8 titres ci sama premier projet EP tey la sama jour anniversaire voilà 27 février mooy sama datu anniversaire c'est normalement est normal indi 8 titres mu date de naissance ba paré ko le jour le 27 février voilà lolou la si que won quoi. wa xam nga aduna mom lepp lo gis rek fay dox ndax gis nga bi bo artiste da nga polyvalent waaw da nga wara ci bor man ku nekk xam na ni base moy sama rap même rap si kaw kabo wala salsa wala ci un rythme bu mu doon rap def quoi album bi boo seetee sax dama ci war a dama ci xaw a wàññi dose euh, variation rap mbalax yi ma yi def quoi pour ñëw parce que Sénégal tout na foo xamante ni il faut ñu indi message dès jaam ñi fa yàlla quoi lu nit di def wala nit di wax mu siy yalla yàlla suñu borom. album bi rap la album bi mom dafa saf sap amna na ñoo xamante gëj nañ ma déglu mais bima leen ci ñamalé quelques titres dañu gis hip hop parce que tout le temps fans yi dañ kay kaas nan ma.

bu ñu organiser woon cypher rap amul rappeur bu ma dàq rap Sénégal mbalax maa ni suñu ay nawle lañ xamoo ne hip hop seen li ko gën a tardeel mooy tënku même seen liggéey bi ku ci nekk liggéey bi la yàlla séddee nga koy def si kaw suuf boo si tënkoo dalay lay julal tardement c'est que man euh, comment dirais je ma affaire bi du course quoi man dafa am carrière la carrière laay def carrière laay suivre su ma la waxee job naa ay album yu bëri dama naan lii nii ngeen ma mooy sama corbe corbe quoi lii mooy sama corbe bi ma yor studio moom laa génne te Ahmadou voilà suma manager national mën na ko seede daf ma forcé pour ma génne ipi e bi parce que dañu ma yaa ngi yàq sa carrière te xamoo ko nit ñi dañ la namm génneel projet ma ne ko kon ok nañu jël sound yi nga xamante ne bu daawul def dara studio moom la ñuy prise ñu indi ko présenté ko fans yi parce que xaar nañ ba sonn waaw xam nga dafa am loo xamante ni dañ ko fay fekk ñu ni loo mën a way mbaa nga mën a rab waaw wala mbala nga mën salaam wala nga mën a taalif te taalifoo yonante bi rek donte jullit nga wayoo dara ashhadu an laa ilaha illallah wahdahu la sharika wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu seydina muhammad rasulullahu sallallahu alayhi wa sallam abdallah di baayam amina moo di yi booy na suñu ay nopp wax leen dëgg ji ñi ko sopp digal leen jullit laa voilà foofu la ma yàlla féetale voilà kon war naa mën a way Seydina Mohamed def ko bunt waaw xam nga Sénégal dafa toll foo xamante ni ñun ñëpp ñu ngi koy joxe te ñun yàlla def na ay ay ay artistes lañ fi suñu baat di àgg baatu ki toog si mbedd bi di di jaay caaf mënu fa àgg wala ki nga xamante ni ci liggéeyam la nekk bu wàccee jóge fi muy liggéey dem këram ñun dañuy def son léegi mu wër àdduna bi ñëpp déglu ko kon tey bu ñu nee hip hop déjà porteur de voix nga message nga te gars yi dañu xaw a wàcc yoon ci côté boobu moo tax ñu indiwaat ay message Sénégal fi mu toll ñëpp xam nañ ko gis nañ problème yi fi am dégg nga détails chaque jour bruit marche voilà comprendre nga moo waral ñu def deuxième titre bi jàmm ak salaam te yàlla na ko yàlla def ci Sénégal defal ko bépp doomu aadama quoi. waa coronavirus moom kenn dootu ko présenté ndax mën naa ne kuy jaay star wala ndaanaan moom xam nga. mom mo fi judd ci ben semaine xam nga def tour monde bi yep dama nan sax ci ben 24 heures def na ay jalorem waaw man dama nan sax mom ab yonenti la quoi ndax mu ngi def ay façon mom quoi waaw yonenti bu doy war la nak yalla ko fi yalla jele waaw ndax ñepp gis nañ dégâts yi mu def ñepp ñi nga xamanteni coronavirus yobuna sen bakan yalla na len yalla yeureum jéggal len quoi len aljana firdausi. yeen ñi tok fi yep xam ngeen ni sénégalais yi dañu son waaw limam ran nan ñun son sama mbokk yu wa bobu dañu sonn quoi Sénégal métti na Macky bi nga faloo ci réew mi ñëpp a kontaan foo romb ñi ngi diisoo mbégte bi wala ngaan ñuy xaar sa ay projet politique ku wax nga yóbbu dig ngay dem Macron di dikk ngeen Macron Sénégal di dig làkk doom dóor doom tëm nguuru ñàkk jom tëj lu ku ñu accusé dërëm ci ko sàcc milliardu réewam justice bi fi génne Karim Wade tëj lu Khalifa Sall warul libéré Bouga Dali ba fi bàyyi Alim Sall aniteer bi aniteer bi rest in peace ci cimetière bi marché gré à gré bi bi ànd wàcce ba léegi dara leeragul ci 94 milliards yi. waaw dañu sonn ci complot yeeg tëj ci ji xam nga détails yi te wax dëgg fa yàlla Macky suma kilifa la c'est le président de tous les sénégalais jox naa ko cër boobu mais man artiste laa artiste boo xamante ni euh, ministère de la culture daf ma attesté. BSDA jox ma sama carte ma bokk ci bépp mouvement wu artistique bu nekk sénégalais kon am naa droit li nga xamante ni euh, baadoole yi ñu ngi koy jooy waaw ñun baadoole yi ñu ngi koy jooy man waruma génne projet période bi te waxuma ci Macky Sall dëgg ji nga xamante ni moom la war a dégg muy sénégalais yi sonn nañ ci système bi nga xamante ni moom lay doxee làkk doom dóor doom comprendre nga sonn nañ ci xoqutal yi déjà démb la xuma barki démb jot naa information président de la république en tant que président nga toog di napp sénégalais yi quoi xawma menace la vacciné wu leen wala ma jox ko ñeneen mais vaccin yi moom jënd ko su ma ay impôt la ko jëndee ak seen seen ay impôt yéen ñu toog ñii ñëpp parce que yéen télé yi sax da ngeen di fay impôt kon Macky Sall na respecté sénégalais yi comprendre nga tamo moytu Macron c'est ça quoi euh gént gi ma ci rendre hommage euh, suma grand Pacoti yalla na ko yàlla xare aljana firdawsi waaw ndax kérok bima démé ci benn studio di enregistrer ba taxaw ci terrasse bi di jël air ñu ni ma Pacoti lañu ñu denc fële yëmbal suma yaram dafa daw waaw ndax dama xamni message yi moo tëdd fële kenal digga, ey cahan le Abibu GTADF Gonzales Unkoppel Lids Das ist وخل uh. comme suñu borom jox ma ay xéewal yu koom-koom bépp doomu aadama ma teewal saytu sa góom-góom du ma xool géer ba ci géewal xonet ma géer maan du ma wàcci kéewal su may gént dafay daa di wal si bépp hôpital régional bu local ma taxawal ñi ñàkk di fitnaal ba tax docteur yi duñu leen tal seeni jàngoro yi di gën di wal di leen néewal gént àggal ba dolo yu xoos yi ci kanamu boromi koos yi ñuy woowee boos yi ñi faax ci xaalisu réew si di ci noos yi bokk na ci ñu gën a gént bépp coono daat fii dañ mu laaj suma bakkan ma joxe ngir dund gu baax ki may seen sama askan daat si añ ce que je rêve jumtukaay yu doy sëkk suñuy élève ba dootuñu sànni xeer grève étudiants yi tamit jot seeni bourse mën a dox seeni course dama toog un jour place am di Couture ak place Serigne géey Couture ak Mbaye euh, booy teg ay son di déglu ndeysaan sama ñu teg pakuti gént gi mu am nu mu ma def fekk bindoon naa saawoon ci gént gi moo ma gën a encouragé ma boole ko ba pare def ko cover Youssou Ndour waaw boole ko euh, rendre si hommage Pacotille aussi voilà. loo mën a way way rek te mënoo te Sénégal wayoo nobante wala wayoo lu lu neex wala wayoo xale jigéen yi rek dafay des parce que ñoom ñooy complété gis nga gis nga xale yu rafet yi ni ñu toogee nii yeew ma dañu bokk ci carrière bi xam nga bokk ci liggéey bi kon loolu lañu mën a def rendre hommage leen ba pare yéen ñi fi toog ñëpp ku ci nekk am nga sa uru ay nii am nga sa benn soxna wala sa benn xale waaw bu la yàlla booleel ngeen di dund seen àjjana waaw mu lay jëlee fii si àddina comme ni ma ko waxee di la yóbbu fee ca àjjana waaw <laughs> gisoo urul ay nii ni ñu kontaanee nii. <laughs> tak technique bi ñëw flow bi ñëw waaw xam nga loolu tontu la quoi du ma tudd tudd kenn nag di leen may bës parce que dañ koy wut ci sama jëmm ji mais may naa leen ko quoi waaw dama tontu yeah tontu du forox man damay tontu samay noon quoi voilà bu yàlla nee waaw ku da ngay sonn. parce que comme ci ni ma ko mën a waxaatee rek gën a leeral rek mooy fii ku si nekk am na lu la différencier ak sa nawle ak sa moroomu doomu aadama tey su ma bëggee bañ li yàlla def si kii wala kee damay sonn moom mu bëgg a bañ li yàlla def si moom ku nekk ak li yàlla def si sa xol ku nekk ak li la yàlla bëggloo nañu nangulante moo waral cooy si dëkk bi yëpp problème yi Sénégal am yëpp àdduna bi am ko mooy bañ a nangulante ku ci nekk nanga nangu li sa moroom li yàlla defal sa moroom nga jariñu si nangulante ñàkk a nangulante moo waral ma gis ni waxtaan a gars yi ni leen franchement bu yàlla nee waaw laa gis ndax ku ni déet dangay sonn te moo waral coono yi yëpp sénégalais yi di dund nañu nangulante ku si nekk li ko yàlla defal boo ko boo ko si mënta encouragé munoo ko si dimbali nga toog maandu nañu bàyyi di toroxalante ndax bañ a nangu li yàlla dogal si jaam kase fii loo mënti nekk di ci liggéey muy post muy fi ngay liggéeyee muy ba ci suma métier bi retraite dina la dab mbaa dee wala ñu dàq la comprendre nga mbaa yàlla suñu borom jëlee la fa du yàlla nee waaw li mu tënk dafa bari mënuñu ko détailler ci conférence de presse. don dafay am nag mais liggéey dafay gën a dafay gën a dafay gën a génne dafay gën a génne talent waaw dafay gën a génne talent su ma la waxee benn affaire doo ko gëm album bi dañuy toog di joob man ak Ahmadou ak gars yi di bind. nekkuma fi sax di répéter quoi dañ koy bind dem studio yee créer fa technique yeeg style yu dóor yooyu ay talent la mais tamit liggéey bi daf ciy joué. xam nga boo gisee Sénégal léegi hmm, ñëpp dañuy doxee dàggasante muy ci politique beeg ci rap beeg lu mu mënti doon da ngay gis artiste boo xamante ni moo tax gisoo léegi ay artiste buzz dafa bari artiste carrière dafa commencé di di di di di di di daanu ci dëkk bi parce que jàpp naa ni boo génnee benn produit hmm, produit bi war na mën a dund ba ilaa yow mi diini même boo fi jógee ñu la koy xoolee moo tax dama ni gars yi il faut ñu def lu tout ba thème yi dominer euh, boo seetee bu yàlla nee waaw la am ak benn tontu du forox comme comme classe laa ko comme lu jëm ci xeetu hip hop. mais sénégalais yi dañu toll foo xam ne il faut ñuy wax ak ñoom di leen gindi di leen yee di leen tette ndax àdduna bi dafa stress gis ngeen dégâts yi am ci dëkk bi comprendre nga. Euh, gars yi ay album snap la ñuy génne album yoo xam ne pour nit ñi toog snap ko 6 mois mu jeex. parce que légui da nga daan gis bu suñu grand old school yi album album bi dafay diire benn 5 ans du wàcc ci niveau bi mu mais léegi da ngay gis rappeurs ñoo fi mujjee album du ma tudd seen tour. album yi benn defu une semaine nañ ko parce que loolu loolu noonu man gisuma ni carrière la quoi hip hop. promotion parce que ñom dañuy def ñuy def ñuy seen liggéey parce que ñom yoy non seen complot yek seen yaa ko violé yeeg yaa ko dóor ak yaa ko ñam yoy yëpp ci seen liggéey la ñu nek quoi mënuñu ma teree def suma liggéey parce que président réew mi bu bëggee dajalé sax mom day dajalé ah nu mu ko neexee dafay affaire am comprendre nga yombul nak gis nga pour ñu def conférence de presse bi sax dafa metti parce que dañoo laaxatu ci ruq diko def comprendre nga ñom ñu ngi doxal seen ay affaire mënuñu ñu téré doxal suñu ay affaire voilà donc dimbali nga ma sax pour me remercier ñi nga xamanteni dañuy sonn pour man duñu nelaw waaw demb man ak ahmadou bamba suma waji ñoo nekk ba 4 h du matin makan njaay mo nekk sama ginaaw ak gaay ni gis ngeen wa adf abibu jité Family. waaw su limé damay joom ba pare da côté finance ñom la album bi digital retina bara sama cousin la barat bara bara digital retina sama sama cousin la ak ñom gaay wa adf abibu jité Family ñi tok awma ñu dul ñoom ñoo nekk sama gannaaw gis nga gis bi ngeen ñëwee fekk ngeen ni ñu taxawee bàyyi seen lépp ñëw toog lu ma def ñoom la bu dul woon ñoom dafay ñaaw